quotidien mu xëy di ñu xibaar naan ñu njiitul Pastef démb la def ab déclaration boobu moo nekk ñetteelu déclaration boo xam ne Ousmane Sonko def na ko ginnaaw bi ñu ko tuumalee lu jëm ci wàllum sifa yéenekaay gi ci xëlim a Assane Samb nee na soulagement am na maanaam alhamdulilah ginnaaw bi Ousmane Sonko nangoo wujji ndax am na leneen lu doy waar loo xam ne mënoon na cee li xeew ni ki démb ci réew mi te nekk ci réew mi quotidien mooy nag kilifa dini yi ak ñi nga xam ne ñooy société civile bi ak ay xaritam ki jege ñaaleem ñoo waxtaan ak Ousmane Sonko ki avocat ba Ousmane Sonko nangoo wujji ndax dafa na di wuy ji moom Ousmane Sonko nee ma ko a tegal maanaam amul benn yaakaar benn xel mu dal benn confiance ci li nga xam xam mooy justice bi nekk ci réewum Sénégal moom Ousmane Sonko nee na wuy ji gi nga xam ne nag ma ngi koy wuy ji du ak deltu ginnaaw du ak yox-yoxi tey jii laa gën a woote li nga xam ne mooy ab résistance ak mobilisation yéen a kaay gii de la Tribune xëy sampablaaj nee na njiital Pastef di Ousmane Sonko ndax su demee janoo ak juge ma di Mamadou sekk ndax Ousmane Sonko du maye patt bi maanaam noppi noppi bañ a wax bu ñu ko laaje mu noppi bañ a wax journal bi nee na est-ce que Ousmane Sonko du def loolu kanam rawuti bëta yéen a kaay gi nee na Ousmane am na leneen lu mu waxati nee na nag Sénégal yi leen Macky Sall laaj leen njiitu réew mi ba xam na xam na ki nga xamante ni maanaam mooy Adji Sarr ba tey ci biir journal bi Khalifa Ababacar Sall démb def na ab déclaration di jàppale Ousmane Sonko moom Khalifa Sall nee na tasaaroo gi nga xamante moom la opposition bi tasaaroo loolee baaxul ci ñoom ndax loolee nee na Macky Sall kenn kenn leen di jël di leen di sànq jamono ji na Khalifa Sall woote na li nga xam ne maanaam mooy ab résistance Khalifa Sall nee na nañu résister nañu mobiliser ndax nag trop c'est na loo xam ne a kaay gi di source nee na Ousmane Sonko tey lay bi waaye benn tànk Ousmane Sonko bi ma nga rëbës sa kër góor gi yéen a kaay gii de la quotidien nee na Ousmane nag la nga xam ne moo daloon Xaadim Bousso moom lay bañ mu daal koy dala ndax nag Xaadim Bousso ba ñu ko fi jëlee maanaam daal bakkan da saa roota nag la Ousmane Sonko di moytu bëri sax ay jege ñaaleem yoo xam ne loolee la ko doon ragalal yéen a kaay gi nee na lu toll ci fukk ak juróom-ñaar ci jigéeni Pastef ñi nga xam ne tegoon nañu leen loxo a kaay gi ji la ñu koy déglu lu toll ci fukk ak juróom-ñaar ci ay député nekk ci kujje gi ñoom jokkoon nañu ak conseil constitutionnel ngir nag ñu daal di annulé dakkal li nga xamante ni mooy procédure yi nga xam ne awela nañ ko assemblée nationale ngir nag dindi malaanu kiraayu Ousmane Sonko yéen a kaay gi de ñi nga xam ne ñooy waa Y'en a marre ñoom caat def nañu ay révélation nee nañu nag am na loo xamante ni ci réew mi waruñu ko nango ndax Fatima Mbengue ak jaburu Biram Souleye Diop ñaari xale yu jigéen yi maanaam bi ñu leen jàppee dañu leen a ñu leen jàppee dañu leen a simbide yéen na ñi nga xam ne a marre ñoo ko xam ne di ko ñaawlu bu baax a baax yow ana nan nga mën a jàppee Fatima Mbeng ak jabaru Biram Sulay Jóob di leen futti waa simi gi moom lu mu ci yéene kaay gi di réew mi cee nee na kuréel gi nga xam ne moo am mboolem organisation nekk ci wàllum njàng meeg njàngale me nee ma ko si def ñoom nag ñoo ngi ñaawlu bu baax a baax jàngalekat yi nga xam ne maanaam ñoo ngi leen di teg loxo yéene kaay gi di lay seko xëy di wax joyeux anniversaire Adji Sarr tey la am 21 ans yéene kaay gi nee na tey la anniversaire wu Adji Sarr Adji Sarr tey am ndax ñetti fan ci weeru mars la Adji Sarr juddu waaye nag ñetti fan ci weeru mars aussi yi la ñu convoqué Ousmane Sonko yéen kaay gii di Vox Populi moom njiitul Pastef nee na nag mën nañu maa néewal doole maanaam mën nañoo suqi nag samay laaf waaye nag ki nga xam ne mooy Macky Sall maanaam lii xew mën na seen ñàkk nguuram gi loora nag damaa bëgg mu leer nañ ci boppam yéen kaay gii réew mi quotidien bàyyi mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr mi nga xam ne moo yëngal réew mi wax ci leneen loo xam ne xew na ci réew mi ci quartier Daaru Salaam ko li des ci ak coronavirus def na ko ci réewum Sénégal région de Dakar Thiès ak Kaolack ak Saint-Louis ñoom la mbir mi gën a sonal professeur Moussa Seydi nee na vaccin bi am na efficacité te vaccin bi di rey te coronavirus day rey yéen a kaay gi la témoin nee na benn at bi coronavirus nekkee ci réew mi lu toll si juróom-ñeenti téeméer ci ay nit ñàkk nañu ci seen bakkan yéen a kaay gi di esat mu xëy wax ci lu jëm ci wàllum présidence bu kaaf ki nga xam ne nag mooy Maître Augustin Senghor maanaam candidature bi daal daf ko dem jusqu'au bout yéen gi di sunu làmb nee na ëmm seen moo aay nag ci xam